kenn dëkkagu nga dem di def assainissement pour di préparer ña fay dëkk ñëw fekk dëkk boo xam ne mooy deuxième ville Sénégal tey bu fekkee yaatuwaay la sax mooy dëkk di gën a tey ci senegal ci wàllu yaatuwaay euh, ay millions de personnes dëkk fi mu nekk deuxième ville du Sénégal ci wàllu économique ci wàllu lépp mbooloo di fi dajee boo xam ne du dajee fenn ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest sax ndax chaque année li fi dajee ay millions et des millions de personnes ñooy dajee ci tubaa amul fenn fu mu dajee ci Afrique de l'Ouest kon jaadu woon na dëkk boobu tey ñu jël ko au sérieux fexe ba def fi assainissement boo xam ne bu wér lay doon su ma déggee ñuy wax ay 23 milliards mi ngi mel ni géej nga jël benn tibb suuf sànni ko ci biir géej ñu ko bëggee assainir il faut ñu dégager ay 500 milliards 600 milliards pour ñu xool nan la ñuy def ba assainir Touba yëpp ba nga xam ne bu tawatee mais Touba fenn ndox du taati ñu fexe ba nga xamante ne kër yi duutul amati ay force ci biir kër yi mais lépp dañu koy braceler ci assainissement bi mais tey lu fi kër rafet rafet boo duggee ci biir euh, fosse septique bu ñu tabax lay am ci biir loolu Touba war na romb foofu ndax mënoo dem ba nekk deuxième ville du Sénégal ci wàllu économie ak ci wàllu population ak ci lépp ba léegi si jëluñu la au sérieux tey jii itam gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne Touba dund na ko ci am ndox mooy la ma doon wax président Abdoulaye Wade bi mu fi jógee bàyyi na fi 29 forages président Macky li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñu ngi koy dund ci wàllu ndox mi moo tax jafe-jafe yi ren ñëpp gis nañu képp koo xam yaa ngi ci Touba daal sentir nga li nga xamante ne man de fi ma dëkk muy xaayal ñëpp